va accéder xam nga c'était pour juste won leen yéen ngeen wone ne ñii li ñuy wax amut mais ñun soxla soxlawuñ ko ñun soxlawuñoo dem foofu yéen lañ bëggoon woon ñoom nee nañ jox nañ ñun trois cent cinquante garages yoo xamante ne defar nañ ko ba mu baax y a des pistes des lampes de l'eau yaa a tout te loolu c'est pas vrai wa loolu mooy problème bi nit ki kay xalaat damaa yaakaar ne ñun dañuy dégër piir dañ ñëwoon dañuy recaser les mécaniciens mais on ñun recaser wuñ ñu dañ ñoo dégër piir nañ ko waxte dee tous les gens sont kenn xamut foo jëm fan ngay jëm amoo place boo yóbbu say bagage da ngay génne say bagage yi valeur huit millions la nga xool benn ferrailleur nga jaay ko cent nga jaay ko cinq cent mille mu yóbbu ko dem tasi ko ñun loolu la ñuy def actuellement ni amoo foo yóbbu bagage yi